لا إله إلا te leen saare bu baax leen nuyu yéen waa Lamp Fall leen xamal ne bis bu mel nii nga xam ne amul benn xew-xew bu xew lu dul nu toog ci fii ci sunu buntu kër rek ak ak nuy nuy béggee Cheikh Ahmadou Bamba rek ngeen ñëw bëgg noo jël bëgg enregistré sunuy waxtaan yéen ko jukkaan mbooleem kàddu goo xam ne mos naa jóge ci sama làmmiñ di génn di dem bisub xew-xew lay doon lu xew ci Touba ci màggal yi rek màggal gu màgg yi wala màggalu Kazu Rajab rek wala yu noonu ma sànni ci ay kàddu yu tuuti rek waaye ñëw ak sa rajo ak sa appareil dañoo bëgg nga sànni ay kàddu rek ma daal di jël sànni kooku moom yéen a ko jëkk am musutam te daanaka jaaji mi doon waxtaan léegi xam na ci dara ñi ma delloo ñëpp xam nañ ci dara daanaka ci ñu ñëw di ko soxla daanaka ci lañ dëkk fan yu néew yu ma am dana am ñu ñu ñu ñu mel ni yéen yor li ngeen yor ñëw fi soxla loolu te duma ko def. baat ba tax ma ma ma ma ma ko def itam mooy bi may wax rek kooku moom sama wax la boo xam ne bii du ci jóg mukk fii ak sama bakkan fi muy dama nekk ci dëkkub kilifteef nga xam ne dañ ma fee yilif te yoon wi du yoonu kilifteef damay wax saa bu nekk ni Touba ki fi war a wax mooy sëñ Sidi Moxtaar rek wala ku mu wax loo ku mel ni sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moo yor baatam ak jëwriñam yi yi ci des rek yi nga xam ne sëñ bi daf leen a jox ay kër yu mag ñu jiite ko te ñooñu it seen wax mooy bis bi ñuy am ba kër ga am bu ñëwee ñi leen yaakaar ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñëpp daje fa màggal bis ba bu njëkkee ba yëf yi di jeex gannaaw yow lañ yaakaar te yaa leen fa dajale nga sànni leen ay kàddu yoo xam ne kàddu yi kër ga lay doon lépp jëm ci Sëñ Tuubaa nag waaye kër ga lay doon nga digal leen ko tere tere leen ci sa biir kër ñu dem yóbbaale loolu loolu loolu moom danay am waaye bu dee baatub dëkk bi nag nga xam ne baatu kër baatub dëkk bépp kooku moom sëñ Sidi Muxtaar rek moo ko moom wala ku wax loo loolu moo waral sama wax du bari man nag maa ci gën a maa ci maa ci war a gën a gën a néew ay wax man ndax sëñ Sidi Muxtaar bu yilifee dëkk bépp kër gi ma bokk da ko yilifale kër gi ma bokk nag bu ko yilifalee ba kam kam yilif ma kooku kay man lu dul dégloog foto su waruma koy def rek euh, waaye nag boo gisee lii tey ma nangu ko muy maam Cheikh Ibrahima Fall rek Cheikh Ibra ku ma ci woo ma bañ ku ma ci woo te wuyuwuma la kon nga xam ne defuma li ma war a def euh, li ngeen jëkk am nag li tax ngeen jëkk ko am mooy li ngeen ma woo yéene ma ci jëkk woo moo tax waaye nun nag yàlla def ma dimbale ba ki nga xam ne ci génn moom muy maam Cheikh Saamoon Bamba ak Laaji Fallu dañuy cee far ubbil bunt dañu cee ubbil bunt far bunt bi mooy sëñ Abo Mbakke sëñ Abo mi nga xam ne ah maam Cheikh ay maamam rek far muy bopp sunu kër kookay moom bunt la boo xam ne nun leeral na sunu mbir leeral na sunu mbir maam Cheikh nag man mënuma cee sori si waxtaan ndax maam Cheikh dafa rëy dafa rëy rëy goo xam ne neexut ku mel ni man di di di ci waxtaan waaye xam naa ne daal képp koo dégg ñuy wax ne murid saadix la ñu tudde ko murid saadix xam nga am na ci yoon yoon yoon yoo xam ne da nga oh diw de moom lim doy war moom di la koo dégg ñuy wax ne murid saadix la boo demee fekk wax googu ñuy wax ni murit saadax la di dëgg danga fekk muy dox doxi ni maam Cheikh Ibra Fall kooku moomul képp koo xam ne dañ ne murit saadax la nga dem te fekkoo muy dox dox yi nu maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. xamal ne dañ ko ko waxal waaye certificat du amut waaw certificat amut certificat moom moo di moom bu ñu la ko waxalee tem mu wér kañ ko kañ ko wax ci moom boo demee boo àggee la ngay jëkk a gis ci moom mooy doxini maam Cheikh rek melawa wax jaag doxin waag lépp maam Cheikh lay doon boo ko fekkul rek. tur fa ne waaye waaye waaye waaye lañ eh, eh, lañ wax amul yi am na ñu bari sax defe nañu jànguñu te man nekk naa ci daara ñu andil ma fa ñu andi fa kaamilu sëñ Cheikh Fall Baye Góor waaw nga xam ne booba eh, li taxoon mu ñëw fa doomu fa nekkoon ak ñetti doomi sëñ Modou Moussa Fall ak doomi sëñ Cheikh Fall bay góor taawam sëñ Moussa Fall sëñ Moussa Fall moom laa fa nekkaloon ak sëñ Bàcc Fall ak sëñ Yidaali Fall ak sëñ Fallu Fall Fatikan ñu andi fa kamil bo xam euh dañ leen ko andil ngir ñu ñu diko jànge ci roy yi kamil ba euh, xam nga ndongo daara lu ndaw ay téréem day gaaw euh, son ma màggat tasaaro mu tas ci dara ji ba do xam waye kamil ba amon na ci ñaari kayit man ñaari kayit ndax tas gi mu tasoon ci daara ji rek eh, mi nga xam ne boo ko bàyyi noonu it daanaka du mujj fenn ñu di ko ba ma am ci ñaari man ma ñaan ko sëñ Fall jël te eh, waxuma kamil rek de ndax kamil moom yomb na ñu ko ñu bari nañ surtout gi moom da ngay romb dajeeg xale bu ndaw boo xam ne bii nii la toll mën na la mën na la mën ñu ne la bind na kaamil wala fii bisu fii bis mu ne nit di andi fi doomam ju ndaw yoo xam fukki at ak nangam rek naan ma dafay jàng wala bind kaamil dafa dem jàngi xam am na ñooñu sax dañ ma koy indil fii yu ndaw indi leen ma fii fekk nañ ñu ba tey ñu xale indil ma fii ay kaamil kon bind kaamil. yom yom yo yombut waaye am na mbindi ni kaamil la yu gën a jafe boo gisee mu tudd kaamilu sëñ Cheikh Fall Baye Góor boobu li ci am a tax ndax sëñ Modou Moustapha Mbacké mu nga xam ne yoon weeg ñu dul yoon bi ñëpp ko xam moo wutu si Ahmadou Bamba mu si jógee téye yoon wi doxal ko ci waxtu boo xam ne ñu bari sax dañoo jàppoon ne si Ahmadou Bamba bu fi jógee ak waxtu woowu ni mel tubaab yi yeeg seen i mbir ak si Ahmadou Bamba seen diggante tubaab yi defoon nañ ni bu suñ jógee rek yoon wi euh, dana rëng-rëngi wala sax day day tas sëñ Modou Moustapha Mbacké téye ko di ko doxal ba jébal ko suñ lu mu di ko doxal ba jox muy dox nii ba fii si ñu gis ni mel te day di kiimaane bu faaw nag léegi sëñ Modou Moustapha moomu bind mënoon mënoon na ko manin woo xam ne képp koo xam ne ki da ngay téye xalima ci ñi xam bind laa wax nag ñi nga xam ne dañ leen doon tudd ñu ndax fee bind ñu mel ni sëñ Demba Kebe ñu mel ni sëñ Moussa mu gi ñoom ñu mel ni sëñ Moussa sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ñoo ñëpp bind daan nañ ci def loo xam ne képp koo xam ne ki xam nga luy bind boo boo gisee seen këyit bu ñu bind rek sa sa àdduna yëpp day dafay dafay jaxle ci xalima liñ koy liñ koy doxale te ñoom ñëpp ak si woon ñu woon sëñ Modou Moustapha Mbacké ci ci ci ci DDW te mbindum sëñ Cheikh Fall Baye Góor moom ma lay wax dem naa ba këyit yooyu boobu may maa ngi toll ci mm, jàng bind xamaguma dëgg-dëgg araf euh, rafetaayam ñu mel waaye këyit yooyu bi ma ko téye sëñ Modou Moustapha Mbacké itam ma jekki bu dem daru salam nek fa seigne mustapha mbake mi mu sonna khadi Fatma momit eh, sonna khadi Fatma amna ci tere seigne mu ay seigne xëy ni ci gaynde Fatma ci kër ga dal ci la ko ñu ñu andil ko seigne mustapha ci fofu ci daru salam muy jimbilang bima ma ba gis binum seigne Mourou Moussa mi nga xamne moo ci daxoon a bind wala àdduna bi yëpp sax daan astaxfirullah ma àdduna moom dafa yaatu te fo fi ma wayam daal mooy xam naa ne yoon wi daal moo ci ku ku ci meloon ni moom ci xalima amul bi ma ko méngalee mbindum sëñ Saaful Baay Góor benn lañ benn lañ xalima gi benn lañ waaw amul benn araf bu ñu bu ñu wuute nuñ koy bindee mbind moo xam ne mii dafay yaru nga xamne minim eh, ñum sëñ Modou Moussa boko boko ma sewu, boko gis day day sew boko ko ni waye boko timé day reuy ndax li tax boko timé day reuy moy ben araf du gëm lepp sëñ Modou Moussa bindam lu mu jegee jegee jegee jegee mën jël lañ si dag dag dag seen digënté té dara du ci laal fenn ben araf du laal bindiwé ben ma du laal bindiwé noonu la meloon sëñ Cheikh te bi ma ko gëstoo ba laaj ba laajte ko bu baax a baax a baax dañ ma ne mbind mi ni nga gis mu yaroog ni mu teeye nii ci këyit bi boo ko dee xool gaawaay baa ko rawoon waaw ndax nee ma sëñ Cheikh Fall bu bu bu ma di bind kaamil ñaari dal lay dal day dal Bakara dal Marème bu bindee xët wi daanaka buy buy àgg ca ca ca wu mujj wa day fekk daanaka bindu wa ci kaw du mu ngay tooy te day yàkkamti mu jël amoon na xale boo xam ne loolu rek la daan liggéey kay jox ko mu dem xaw ca naajo mu jël mareem ci ci ci suuf jël ci teeri bala bala bala jeex fekk këyit wee wow mu jël albati xam nga aw këyit bu tooyee ci doo ko mën a albati mu daal jël daal di bind yóbbu xa ngóor yóbbu bi ci des noonu la moo tax daanaka bu daan bind sax ay weer ay fan rek lay doon.